إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك إني أخاذب النصارى mbokki julit yi mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Serigne Sidel mukhtar xalif général di kul mourid di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru sel wu màgg bi ñu nekk ak at mu bees mi nga xam ne moom lañ dugg di ñaan sun borom mu sàmm ñu sàmmal ñu njaboot gi ci lépp luñ si jaamu mu defal ñu ko Serigne Touba si Ahmadou Bamba Xaadimu ngeen ko xamee nag ñi ki tey jii ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre di bis bi nga xam ne moo di treizième édition ci bisu xasida yi nga xam ne dañ koy amal fii ci itali ci at mu ne ngeen gis mbooloo mi fenn fu ne ñu fa jógee di ñëw ci wàll gu ne Eh, ci teewaayu Serigne eh, Cheikh baara mi nga xam ne moom la Serigne Sidel Muxtaar di fi yebal at mu ne moo ànd ko ak mbooleem njabootu Cheikhul Khadim gi nga xam ne ñoom lay fekk fii ci dëkk bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci dendu Europe bi jóge ci ay réew yu fasanti ni nga ko gisee nag ci suba ba léegi ñu ngi ci biir programme bi eh, nga xam ne ay plateau yu am solo yoo xam ne dañ koy amal fii ñu nekk séq ko ak commission culturelle bi ñu ràññee ci bu baax ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Ndiaye sëriñ Mbacke Ndiaye Serigne Xaadim Faye ak sëriñ Maxtaar Sey bu Touba Toscana moo am ay waxtaan yu am solo yoo xam ne nii fas yéene na ko fee amal waaye lu jiitu loolu rek euh, ñu leen di xamal ne euh, def nañ ouverture bi léegi si kanam kuréel yi commencé nañ ñu euh, li nga xam ne moo di programme bi délégation yi itam ñu ngi jógee fenn fu ne di teew fi nga xam ne moo di liggéey bi ànd ko itam ak mbooleem groupe de presse yi nga xam ne ñoo féete fii ci réew ak yi nekk ci bitim réew ñu leen di xamal ne bépp boo xam ne nii rek mi ngi yéen koy gis muy yëngu ci lépp loo xam ne lu dëppoo ak liggéeyu mi ngi ànd ak yéen ci liggéey bi kon képp koo xam ne tamit yaa ngi ci yeneen réew yi ca ñu bàyyi xel mën nga dugg ci mbooleem site yi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy site internet yi ñu jàpp ci bu baax li nga xam ne mooy Touba Monde bi Bichri TV Adoubé yi télévision boobu nga xam ne moom itam ñëw na euh, naa bu ñu limee sax dañuy juum waaye mboolem site nga xam ne rek ngi liggéey ngir jëmmi sëriñ bi di liggéey ngir xaside ñëpp ñu ngi fi ci jotaay bi nag ñu ngi toog ak ki nga xam ne moo di sëriñ Saliou Ndiaye nekk nga jëwri ne ñoo jiite wàllu commission culturelle bi toog ak ki nga xam ne moo di sëriñ Ahmadou Mbacké Ndiaye toog itam ak mooy ki nga xam ne moo di sëriñ Ahmadou Khadim Faye kon ni ñuy def mooy euh, jébal kàddu gi si Ahmadou Mbacké Ndiaye mu daal andil ñu tuuti ci li nga xam ne mooy eh, wàllu programme bi nga xam ne moo nekk ci sunu kam kanam ci plateau yi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal fas yéene ko ànd ak yéen fii ba suba incha allah bu ñu jullee ci suba gi ba pare door a yeewee ko kon bisimilah sëñ Mbàkke ñu ngi jébal a kàddu gi. aawuusu billaahi mina rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fu mën nekk si àdduna bi di ñu bàyyi xel ñoo leen nuyu baax di leen ziyaara jiit ñëw ziyaar bi Cheikh Sidi Moutar Mbacke di ko ñaam yàgg bi loolu te ak njaboot Cheikh Khadim gi yëpp ci barkeeb Cheikh Khadim jërëjëf Cheikh Moussa Kamal jaxate ci ubbi bu am solo boobu ak ci leeral gi comme ni Cheikh Moussa waxee rek ñoo ngi toog ak ñi nga xam ne ñoo yore commission culturelle bu bisu xasida Touba Italie Euh, Serigne Saliou Ndiaye nekk suñu wet ak Serigne Khadim fay ak Cheikh Mamadou Moussa mi nga xam ne moo doon addu sànq comme ni mu ko waxee rek incha allah ñoo ngi ci biir bis bi euh, di ko dund ak mbokk taalibe ak ñi nga xam ne ñi ngi jóge ci àddina bi yëpp di ci teew si ngir ànd ak ñun bis bi incha allah délégation ñi ngi jóge ci àddina bi di fi ñëw incha allah am nañ pas-pasu dalal leen ci plateau bi euh, ci ay laaj yoo xam ne dina dëppoo bis bi te incha lépp rek day duggaat biir bis bi ni ki kuréel yi nga xam ne tamit teew nañ fi tamit ni ki seen i jëwriñ incha allah am na yéene daal leen fi ak borom xam-xam yi yi nga xam tamit dañuy jóge fu ne di fi teew lépp rek ci tëral wi nga xam ne waa commission culturelle ñoom ñoo ko tëralee noonu incha allah taala xam naa ngir njëkkante waxtaan si Moussa ngir bañ a guddal rek xam naa kon danay delloo kàddu gi rek wala xëy na ku mel sëñ Xaadim incha allah Euh, ñuy jox daal maam képp yaa ngi ñuy bàyyi xel ci kanam tuuti ci ay plateau yoo xam ne incha allah dana am en ci ni mu ko leerale sànq ci sit yooyu ak ci rajo yooyu ak télé yooyu bu neex suñu subhanahu wa taala jërëjëf Cheikh Moustapha jërëjëf euh, Cheikh Ndiaye ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne moom nga ñu wàññi li ñu dëgmal liggéey bi nga xam ne moom la ñu tàmbali nii di ñaan niñ ko tàmbalee ci bisimilahi rahmaani rahim ñu jeexale ko ci alhamdulilahi rabil alamin kon ni ñu def mooy jébbal kàddu gi sëriñ Xaadim euh, fay moom it mu andil ñu programme bi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam ndax ñàkkul ay niñ ko daan defee ci at mu ne mooy ay waxtaan yu jëm ci wàllu diine yoo xam ne nii ci ñi koy amal ci biir mbooloo mi la ñuy jógee ndax lépp mi ngi ci biir lépp itam mi ngi biir xaside yi ñàkkul ay thèmes yoo xam ne nii euh, euh, waajal nañu ko ngir war koo waxtaane ngir itam gën a leeral li nga xam ne moo di liggéey bi kon ni ñu def mooy sëriñ Xaadim ñu bàyyi la la daal di nuyoo ak téléspectateurs yi andi itam ay leeral ci wàllu woowu ba ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi topp ah, xam yi liggéey bi fi nga xam ne fi la commencé waaye xam itam fi ñu bëgg a jëm. aousubillah min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa mbokk yi xam ne ñoo ngi seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen nuyu te di leen siyaare te di leen ndokkeel ci bés bu tedd bii ñu nekk nga xam ne mooy bésub sant Cheikhul Khadim ci biir mbind mi nga xam ne ci la doon liggéeyal boroomam comme ni ko sëñ Kamal waxe ak ni ko sëñ Bakke waxee ci commission culturelle bi nga xam ne moo nekk ci mbooloo mi taxawal bis bii te Serigne Saliou mii toog nekk ca bopp ba tem niñ koy defee ci année bu nekk tànn ay thèmes yoo xam ne dafay ànd ak bis bi te jëm ci xam-xam ak ci diine ak ci yi nga xam yoon wi sëriñ bi indi na ko te tënk ko ci biir xasiida yi ñu tànn ci ay thèmes fas yéene ko waxtaanee xam naa bu dee ci année bii ñu nekk ren ñoo ngi taamu woon ay thèmes yoo xam ne ci biir xasiida yi yëpp lañ koy génnewaat la ca njëkk mooy tawxiid ci biir xasiiday Seexul Xadiim yi xam ngeen ne tawxiid sëriñ bi dafa wax ne li mu doon bind lépp ci taw tawxiid moo ko taxoon di bind mel na ne sax wax na ne moo ko indi woon ci kaw suuf mooy li wax ne uqallidu tawxiida lil ilaahi muqallidan matxa nabiyillahi saxal ko rek ko indi woon ci kaw suuf mu noppee it ñu tànnaat beneen boo xam ne mooy alquranul karim ci biir xasida yi Serigne Touba yi alquran it xam ngeen ne bu ñu nee alquran ci biir xasida yi xasida yi mooy alquran ndax sëñ bi daa wax ne ci biir secret alquran la jëlee xasida yi mooy sintu bi sirrihi makatiba tadum mu yasiran loolu mooy secret yi mooy xaside yi secret alxuraan lañ tibbee beneen tam bi ci topp mooy mahabbatu rasulil karim min xilaali kitaabaati seyxil xadiim loolu itam la bu am solo muy bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam ni ko sëriñ bi feeñale ci biiru mbindam ci biir xaside yi nu mu ci feeñee ni mu ciy soññee ni mu ciy digee nga xam ne kon murit bi noonu la ci war a taxawee beneen bi ci topp ñu gis ne xam-xam dafay doon lu am solo te sëñ bi li mu doon bind lépp sax daa mujj wax ne motif yi ko taxoon di bind bari na waaye dafa mel ne daa wax ne lastu aqutu xayra bastil ilmi mooy bind ma lu dul saxal xam-xam saxal xam rek moo ma tax di bind kon thème boobu yi ñu tànn ko waxtaan lan mooy xam-xam ni ko sëriñ bi gisee xam-xam yu am njëriñ xam-xam yi mu joxoñ murid yi pour ñu njëkkee ko bu ñu jugee di jàngi yooyu lu mat a xam la ndax waxoon na ne nit ñi dañoo yittewoo xam lu leen dul jariñ lu leen dul fegal mbugalum bàmmeel kon nag moom warlu woon na bind ci xam loo xam ne te mel ne lim bind lépp looloo ko taxawoon a jug thèmes yooyu lañ tànnoon am na ci yeneen thèmes yoo xam ne it jamono mooy dox ba indi ko ñu war ko cee boole ndax tamit bis bi day bis boo xam ne dafa làmboolu yaatu dafa làmboolu yaatu mbooleem li nga xam ne mooy nekk ci yoon wi ak ci diine ji te yi njariñ ak yoo xam ne dañ ko war a defaraat ci doxin mu gën a yiwéen yooyu yëpp su ko war di waxtaanee loolu tax na ñu indi njàngum xasiida du phénomène boo xam ne dañ ca bëgg leeral njàngum xasiida ci boppam cosaan ya ak fii mu toll ak fa mu jëm ak ban taxawin lañ ca war a taxaw bokk na ci it euh, ndaw ñi nga xam ne dañ leen a gis ñu tàmbalee jëm daw jëm ci sëriñ bi te mel na ne jëm gi am na bëgg waaye ak xam léeg-léeg da ngay gis ne da ciy manqué loolu yi fexe ba orienté leen teg leen ci yoon dafa mel ne da ciy baax moo tax commission culturelle bi tànnaale thème boobu muy ndaw ñooñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xam ñoom seen bopp seenu bëgg teg man leen a orienté ba lu bëgg gi baax baax mu fexe mën a ànd ak xam xam naa loolu mooy thème yiñ ci tànn incha allahu am na ci yoo xam ne nag danañ ko def ci italien incha allahu ba ci français ñoo ngi jàpp jàpp def ko ci ba tey it waa am saar muy suñ mbokki italien yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi fas yéene ñoo am ñoom ay jataay ñoom it liggéey bu am solo boobu ñuy def te lépp Nek ci biir xaside yi Touba yi ñu man ko man ko yaatal ak ñoom séq ko kon xam naa loolu daal ci gàttal mooy programme bi nga xam ne waa commission culturelle doon nañ ci saytu ba liggéey ci incha allah yeneen borom xam-xam yi nga xam ne danañ leen dalal séq ak ñoom jataay yooyu yi kon mbokk mu koy seetlu mu ne rek nga xam ne jataay yu am solo yu fees dell ak njëriñ ñoo ngi ñoo ngi ci ñoo ngi ci bis bi di di di di di war a jàll kon ñu man koo teewlu bu baax a baax te fas yéene cee liggéeyal Serigne Touba xam naa kon Serigne Kamal damay daal di gàttal foofu bu ko defee ko jox Baye Saliou Ndiaye ñu gën a leeral ci programme bi incha allah jërëjëf euh, sëriñ Khadim ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne moom nga ñu andil muy euh, mënu bi nga xam ne moo nekk ci sunu kanam muy programme bi nga xam ne moom la commission culturelle bi génnee ngir ñu war koo waxtaane ci bis bi mu doon ay thèmes yu wuute ca yëpp fees dell ak njëriñ moo am ay borom xam yu fees dell yoo xam ne tamit ñu ngi fi ñoo xam ne ñu ngi leen di xaar ñu ñëw ñu war a séq ak ñoom jotaay yooyu kon xam naa ne ñuy def mooy jébbal kàddu gi sëriñ Saliou Ndiaye boo gisee tax ñu mujj ko itam Euh, yàlla def na moom moo nekk si bopp commission culturelle bi kon moom moo ñu war a indil nag li nga xam ne mooy solos bis bi globalement ak fi nga xam ne fi lañ doore ci subaak léegi fi ñu tollagum ak li nga xam ne moo ñuy xaar si kanam ci wàllu programme yoo xam ne ni moo xam mu wàllu kuréel yi la moo xam mu jëm ci wàllu sang si xam ne ñoo fi nekk itam ci wàllu euh, xam-xam loo xam ne nii rek jëm na ci wàllu organisation bis bi te lépp ñu fas yéene ko ci li nga xam ne moo di diine ñi nga xam ne noonu la sëriñ bi tënkee woon doxinu yoon bi kon sëriñ Saliou bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخير خادم وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي بكي mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara Cheikh Moustapha Al Karim ñoo ngi lay nuyu ñong koy nuyu waaye sëñ Mbacke Ndiaye ñep ñong leen nuyu di leen ziaré bax bax ci bis bu mag bi bis bu tedd bi di ziaré mbooleem julit yëpp ñong leen di ci bis bu tedd bi bis mag bi nga xamné bisu diiné la waye de bis bo xamné bisu sante yalla la bisu sante yalla rek la ndax lepp lu ñu rek ak jaamu yalla rek lañ ci jublu ci tambali ba ci mujj gi te xam ngeen ne mbolo mu and mu nek dana baax ñu am koo xam ne day ànd ñoom ci biir liggéey bi ñu am ak njàngat ci biir te ñooño weesu lu dul commission culturelle commission culturelle mooy ñoo xam ne ci diine rek ci la ñuy waxtaan ci lañuy dox lépp loo xam ne dëppawut ak diine ñu ne la nii la lépp lu dëppawut diine ñu ne la noonu la loolu moo waral commission culturelle bi saa su nekk di saytu liggéey bi di ànd ak mbooloo mi te waa ñi nga xam ne ñoo wàllu média bi jàpp ci lool di tasaare ndax bu doon ñooma sunu kaddu du jot ba nit ñi mën cee jariñu kon ñoo ngi sant waa presse bi ñoom ñëpp rek ci taxawaay yi rafet yi nga xam ne ndax seenub liggéey kawe na lool rëy na lool ndax nit a ngi toog ci këram waaye ëpp la njariñ ci jataay bi ndax nit mën naa ñëw te amul pas-pas wala sellal gu mu war a sellal wala goo xam ne amu ko kon ka toog kër am pas-pas mën naa moo ko ëppale kon nag ñoo ngi sant ñi nga xam ne ñooy waa presse bi ñoom ñëpp rek bàyyiwuñ kenn eh, bis bi nag xam ngeen ne ndigal lañ ci ameen waaye xëyuñu xëy rek di ko def ngir ak jot waaye defuñu ko it ngir ne dañ ci bëgg lu naqari kenn walla luy naqari kenn jubluwaay bi weesu lu rek gis nañu ne Seexul Xadiim liggéeyam bépp da koo jëmoon ci xasida yi ndax li mu doon ak li mu bëggoon a wane ak liggéey bi am ci xasida rek la ko def kon loolu dafay laaj kon saa su nekk am kuréel boo xam ne day jóg di saytu loola euh, di ca dox guddi di ca dox bëccëg mooy waral kuréel yu xasida yi ngeen dégg seen liggéey du weesul loolu ndax sept tonnes yooyu ñuy wax yu tegal su fekkoon na da koy def rek teg ko loolu taxul ñu koy def la mu bëggoon mooy ñu koy jàng di ko yëkkati di ko sellal loolu mooy dëgg-dëgg bokk na ci liggéey boobu. te loolu day mel ne ba tey mooy wéy kon loolu moo war a commission culture nag ànd ak mbooloo mi di leen saytu ni ñu ko baaxoo def nag bi nga xamee ne Cheikh Saliou Mbacké mu baax ma jox nañu ndigal ci ñuy taxawee bis bii ndax biñ ko taxawee dañ koo wax dañ ko waxoon mu ñaanal ñu si waaye joxuñ ci ab lim ay xasida yoo xam ne dañ nañ ko si jàng muy li nga xam ne mooy wakkaana xaqan ak wala xad karam naa ak fasajaaba ak yaa rahmaan yaa rahim jooju na saa su ñëwee na ngeen ko yey fasaale ci bis bi tey jàng loolu ndigal loolu lañ wéyal ba nga xam ne ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Bara bi mu ñëwee moom it daal di wéyal liggéey boobu joxaane ci ndigal daal di wax ne nan ci dolli li nga xam ne mooy jaalibatu maraaxib ñu wéyal liggéey boobu ba seen sëñ Sidi Moxtaar nekk fi yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko ba li mu naan lépp suñu borom defal ko ci kaw njort mu soññaan ñu fedd la ndigal ñaari ndigal yooyu joxaañu la leen ndigal daal di wax na nag na ngeen ca boole li nga xam ne mooy nooru daare ni te xam ngeen nooru daare ni xasida la goo xam ne sëriñ bi daana ko fonk lool fu ma bu dee sama téere ba rek li cëpp ñaare téere boobu lay wax muy nooru daare ni li cëpp euh, ñaar yooyu rek taxawee mooy adduna ak alaxira kon téere boobu li mu ëmb mooy dafa ëmb li nga xam ne mooy dunduk taalibe bi moo tax euh, sëñ Sëriñ Moxtaar jox ne ko kon yàlla na fi yàgg loolu te waaye bi nga xamee ne jox nañu ndigal nag soññee nañ ci ci lu jiitu bis bi ba taalibe yi wax dëgg yàlla ënd nañ ci li mu am solo te ci biir jataay bi ñi ngi koy continuer def nañ ko ay ay ay kuréel yoo xam ne yu wuute la ci biir jataay yi nga xam ne lañ ci jublu rek mooy kenn ku nekk sas wa nga yor rek nga jëm ca indi te sellal ko lim bu am solo la moo waral loolu nga xam ne duñu lim ci xaside yi ndax xaside yëpp ñoo bokk waaye rek ñu def ko ay pàcc pàcc bëgg rek lu gën a yombal liggéey bi ndax am na ñoo xam ne xëy na am na xaside yoo xam ne mooy seenu sas am na ñoo xam ne weela kenn ku nekk nag ñu wutal leen ay lim di leen ko jox ñu koy wax ci biir liggéey bi boole ko ndigal yooyu nga xam ne am na te sëriñ bi ñu ko kon loolu la ñu ci biir waaye ci loolu nag dañu xam ne it kon euh, liggéey sëñ Tuubaa ku koy liggéeyal te bëgg tam gërëm la nga koy jiite mooy alxuraanu karim ndax léppam alxuraan la woon tam soño ci lool soño ci lool sañee ci lool nag euh, ba tax na bi ñu xëyee moom lañ ubbee waaye li ko jiitu am na mbokk yoo xam ne jàng nañ ci kër ga ay lim yu takko takku yoo xam ne andi nañ ko ngir rek waajale ko bis bi ak góor bis bi xam ne loolu mooy bëgg-bëggu Seexul Xadim nga xam ne moom lañ ubbee andi ci ay tout tànk yoo xam ne fii lañ jàngee bokk ak ñun kuréel yi nekk ci daara yi waaye bi ñëwee ubbi nañ ci alxuraan kenn ku nekk dégg nga niñ ko ubbee muy lu am solo loo xam ne kenn ku ne xam ne ne kon mbooloo mi mbooloom Serigne Touba rek la ba tax na foofu lañ ubbee liggéey bi waaye la ci gën a yéem mooy ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Bara moom la sëriñ bi yebal muy doomam at mu jot mu war a ñëw taxawee liggéey bi bi mu ñëwee ànd naa ki bokkam mbooleem ñi nga xam ne ñooy mbàkke mbàkke yi ñëpp ñu ànd ak ñun sëñ Moussa Mbàkke bu Milan mi ngi ci ak sëñ Fallou Mbàkke mi ngi ci ak sëñ Sidi Mbàkke nga xam ne bari nañ ñoom ñëpp wax yàlla ànd soxna yi sax mbooleem ñi sant Mbàkke ak yeneen ñi nga xam ne wàkk sëñ Daaru ñi ngi fi ak ñeneen ñeneen ñu ànd ak liggéey bi ngir ne liggéey bi liggéey seen xadim la kon noonu la ñu tàmbalee liggéey bi waaye li ci li ñu koy doxal mooy loolu day ànd ak mboolem ñu ne ci saal bi dañuy takkatoo genn yitte lañ am muy alxuraan ak xasida koo xam ne mu yàlla def na mënoo ko it na ngay def mooy kurus nga yor di def zikru ak salaatu ak matxu yooyu ngay ngay ngay ngay mboole def ci sa ci sa kurus nga xam ne noonu lañ ko doxalee ngir ne dañoo bëgg bis bi fees dell ak njariñ nga xam ne dara du ci neen nga xam ne ku dem sax ba nga xam ne da nga xaw a euh, bi da ngay jóg tàllal sa tànk yi jàppaat ñëwaat toogaat waaye bis bi noonu lañ koy dundee ba fajar incha euh, nag li nga xam ne nag mooy dëgg-dëgg mbir mooy njàngum xaside yi njàngum xaside yi lañ ko booleeg moom nga xam ne mbooleem kuréel yi ñi ngi toog waaye dañuy def mooy kuréel bu toog wutal na ab ab lim waxtu woo xam ne te tàmbali waxtu woo xam ne te ngay jeex su jeexee beneen sof si noonu lañ koy toppoo nga xam ne du am wax du am taxaw noonu mooy programme bi nga xam ne noonu lañ ko bëgg defee bu nee ba ca biir nag danañ jox ki xam ne mooy jëwriñ ji muy sëñ Sam mu indi li nga xam ne mooy cantug mbooloo mi ak ngërëm yu ci ci moom jëm ci mbooloo mi moom it dana ko indi ci biir liggéey bi incha allah waaye bu ñu ba ci biir it danañ dalal borom xam yi am nañ ab thème bu boo xam ne nañ ko indi ngir ñëpp ñu nekk saal bi mën koo bokk déggandoo ci xaside yi ñu mën koo tënk ñëpp mën caa jariñu na ci biir liggéey bi incha allah su ko defee bu ñu demee ba ca mujj ga nag danañ jox ki nga xam ne mooy sëñ sax Baara su ko defee moom mu indi nag ndigalu sëriñ bi ak i santam ak i ngërëm ak i ñaanam su ko defee loolu mooy liggéey bi ci biir loolu nag commission culturelle mi ngi saytu ci biir lépp loo xam ne njariñul julli la njariñ taal bi la des ko ci biir liggéey bi incha allah kon yéen ñi a toog di jàkkaarloo ñoon tey bàyyi xel jotaay da nga xam ne daal bis bi daal la muy lan la liggéey bi Seexul Xaadim képp liggéey bi kon ñi koy dafit pas-pas lañ boo xam ne bu sell nga xam ne sëñ Tuubaa mooy seen yitte te it borom yi xam-xam la ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom dañoo fees dell te sëñ bi lañ bëgg liggéeyal kon ñu war koo liggéeyal ci fànn na ngeen xam ne am na it ci biir liggéey bi xam nga ne li ñuy wax exposé exposition bi li muy jariñ mooy wane liggéey bi Serigne Touba ndax euh, am na ñoo xam ne xëy na euh, dañuy dégg yeneen euh, borom xam-xam yi ak lu mel ne suuf yooyu yooyu nga xam ne jaar nañ fi ba jàll lu mel ne Gandeek ak ñi nga xam ne mooy ñu mel ne ko noonu waaye xamuñu dëgg-dëgg Serigne Touba ñu gis na it am na ñoo xam ne xëy na ay làkk euh, euh, italien lañ wala ñi nga xam ne dañuy gësu ci wàllu xam-xam te dégguñu arab ñu traduire leen ko defaloon ko ci langue boo xam ne bu ñëwee dañ ko mën a dégg ci français ak ci italien nga xam ne a leeral ba mbooleem histoire sëñ li nga xam ne moo ci aju des na leen ko xamal kan mooy Serigne Touba ak lan moo di jaar jaaram ak lan moo di jublawaayam ak lan moo di am xidmaam ak fan la jëmoon murid yi ak ban bëgg-bëgg la amoon ci loolu loolu am na ci ku dugg ci bunt bi incha allah borom xam-xam yaa nga fa boo ñëwee sëñ Dan Mbakke mi nga xam ne mooy sunu jëriñ ànd ñu liggéey bi moom moo jiite liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndal te li mu subli mooy feeñal liggéey sëriñ Tuubaa bi ci li xam ne moo di ci bitim réew loolu rek mooy jubluwaay kon daal taalibe yi lay seen liggéey ci bisu xasida daal weesu lu dul tasaade liggéey bi sëriñ Tuubaa ci ndaw ñi ndax gis nañ ne ndaw yi jamono jub ko waaye gis nañ ne rek lenn rek moo dimbali muy xasida yi ak xam-xam moo leen mën a dimbali commission ko di ci liggéey lu am solo ci wàllu xam-xam nga xam ne ñi ngi ciy jàngale saa su nekk ci jataay yi waaye ñi ngi jàngale ci warsaw yi waaye fu lu mel ni dinañ fi jàngale nga xam ne ku ko topp ren ba déwén mën nga cee jariñu kon loolu mooy li nga xam ne mooy euh, liggéeyu commission culturelle di saytu la ca doolu ko ren taw fi am na ci ci soxna yi ndax Sëriñ Tuubaa dafa euh, bañoon jaxasoob lool góor ak jigéen ndax xëy na mën nañoo toog sax séparation mën na am ñii toog fee ñoo toog fële ci kaw kenn ku nekk nekk ci la may nekk waaye dañuy bañ ci biir loolu am ñu jóg di fekki morom ja loolu mooy waaye su fekkee sax dañoo toog ne ñee toog ne loolu te jotewuñ dara loolu sariya nangu na ko ndax bu ñu xoolee ci jàkka yi wala jumaa yi léeg-léeg dañuy am foo xam ne te gannaaw lay doon rek ci biir jàkka ja doon waaye dañ fay def li nga xam ne mooy soxna yi lu mel ni Euh, moom lañ daan def naka jekk waaye yàlla dimbali ñu taw fexelo ba am barab boo xam ne dafa séparé wu ak garab barabu góor ñi fa lañ leen yóbbu ñoom soxna yi nga xam ne mbooleem li ñuy def bi moom la ñuy def foofa nga xam ne ñu ngi en direct ci rajo yi ak ci ci ecran yi ci lépp waaye li ñu tudd mooy jàngale xam ne diine diine yi nga xam ne mooy diine yi ñuy dégg ak diine sëñ touba jën diine rek la waye dañ ci dugg ci bokku way jën diine ji rek la kon loolu moy li xamné mom ne moom lañ indi woon tey jii te yëpp inshallah ay léra bu ñu ci soxna yi am nay tombu yoo waxtaan yo xamné ne ko ci mbokk soxna yi yooyu yëpp incha allah commission ta dana ci ñëw ak li nga xamné moy tombu yi nga xamné war nañ ko wax ci sëñ khalim léra ko léegi ak yeneen yo xamné inshallah fi allah fii ba fajar incha allah loolu la jotaay ak yéen kon dañuy teunk rek wax ji foofu sëñ Moustapha di sant bax di wax mbolo bi nañ bàyyi xel ci jotaay yi xamna lépp njëriñ la rek kon alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Saliou ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne moom nga indi muy li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne mooy mooy ànd ak bis bi di ko gunge ak njàngum xasida ñu leen fàttali itam ne mm, ci kuréel yi daanaka bu ñu xoolee ñu ngi toll ci suma jumul si ñaar fukki kuréel ak ñett ba ñaar fukki kuréel ak ñeent mu am ci itam yoo xam ne nii ci biti réew mi la ñu génne ndax ñu ngi ci séentu fu mel ne kuréel boo xam ne mi ngi jógee kuréel national bu Touba Espagne kuréel national bu Touba France kuréel national bu Touba Angleterre kuréel national bu Belgique kon yooyu yëpp ak bu euh, fi nga xam ne moo di Norvège muy délégation bu tàkk boo xam ne nii moom itam dafay jege ci at mu ne ñëw di soob seen bopp ci liggéey bi jàpp si liggéey bi bokkaat sax daanaka mën nañu ci biir organisation bi ñu gis na rek loolu lépp it ko waral mooy mbooloo mu daje ngir bokk lu ñu bëgg. loolu tamit xam naa dañuy bàyyi sëñ Xaadim rek mu def ci tuuti euh, ab ab ab leeral ak itam li nga xam ne moom la sëñ Saliou wax nii jëm ci wàllu xasida yi nga gis na kon bu riis ñu am boo xam ne mooy ni nga ko tënkee woon sànq rek ci ne maanaam dañ ciy jéem a euh, lépp loo xam ne ni lu jëm ci wàllu xam-xam la ak itam nax la ñuy def ba gën a mën a ubbiku ci biir xam ne mbooleem li nga xam ne moom mooy joxe ñi siñ bi joxe woon mi ngi ci biir xasida yi waaye léegi li ñu des na mooy nan la ñuy def ba exploité ko waaw xam naa suñ kamaal noonu ko Baye Saliou waxee te leeral na lu bare bari ci euh, loolu mu wax ci exposition bi ci lañ tàmm woon sax def ci benn exposition boo xam ne ci italien lañ koy def ci làkku réew mi gën ko gën ko yaatal ndax ñoom it leg dañ leen di xaw a fàtte ci programme yu bari loolu bi ko mbokk yi saytoo xam ne guddi xasiida lañ woote ku ne mbindum Serigne Touba ne xam-xam ku ne wane li ngay bind li nga waroo rek di tog di diglu waaye war ngaa war ngaa ñëw ñu wan la loo xam ne da ho tek mën sa loxo ci sa looloo tax ñu waajaloon exposition yoo xam ne xay na moo ngi gën a yaatu na thèmes yu bari lañ ca lañ ca uh, boole waaye biographie Serigne Touba daanaka lañ tënk bu mën nañoo wax ne Irwaaw Nadim lañ jël traduire ko en italien. boo ko dee daanaka lépp uh, moo nga ca ba noppi nag indi li nga xam ne mooy fii ci Europe dafa nekk jafe-jafe ci ñoom mooy dañoo xawaar a ragal lislaam ba léegi fu ñu ko tuddee rek jàpp nañ ne moom aw ay ko tax a jóg ñu bëgg leen a woon boo xam ne nag mooy Cheikhul Khadim moom lislaam ji mu yoroon moom jàmm rek ko tax a jug ni ko Baye Sary waxee nga xam ne toujours dañuy joxe ay exemple ci ay Mahatma Gandhi ak ñeneen ñoo xam ne eh, donte def nañ eh, jihaad yi waaye jaasee leen rey te avant ñuy am résultat bi ñu am eh, def tour nañ dareet sëriñ bi nag mooy koo xam ne moom def na jihaad ji mu def am ñoom résultat bi mu am ñooñu amuñu ko te moom weñ sax musta dee ci moom. musta musta tuur daray dareet kon loolu warees na koo wane modèle boobu yi nga xam ne àdduna fi mu ne daa toll ci gë ngëlëmte loo xam ne day wër solution marché mondial bi ñu toll mooy kenn ku ne da ngay indi sa marchandise teg ñun nag marchandise mi ñam muy Cheikhul Khadim lim yor kenn yoru ko war nañ koo mën a yóbbu ba nit ñi xam ko gis ko looloo tax ñu ñu boole ko ci gën koo yaatal ñu seq ko waa majalis Italie ak eh, xale Bergamo yi nga xam ne ñoo ko yor te eh, waa kuréelu bi dénk leen liggéey boobu yi ñoom ñoo seq liggéey bu am solo boob yi di ko def waaye na ko waxee ci bëgg a wane ne mbooleem Serigne Touba nit ki dañuy wax ne boo ko bëggee xam da nga yër lim bind. kum mën a doon ci àdduna da ngay gis jàngkat yi sax bu ñu yër liir mbindum ñenn ci ñi leen jiiti woon ci suufis yi ku mel ni imaamu xasal yi dama koy jël am na nit ñoo xam ne moom rek lañ gëm te moom la ci moom la ñuy euh, def seen référence. ñaneen ñi nga xam ne ci wàllu bind ci wàllu européen yi la wala ci ci naar yi ku mën a doon am nga ko te fekkanti wuñ jamono naa am ay siècle dox na ci seen diggante mais liir gi ñi liir seen mbind loolu day dem ba nit ki li muy bind day sotteeku ay xalaatam ci la nekk aw gis nam lenn na ne ban bu ca doon jëf ban jëfin la cay ame loolu ci mbindam lay feeñ loolu moo tax ñu jàpp ne Cheikhul Khadim ku ko bëgg xam dëgg dëgg faw nga liir mbindam gisiinam ci lu mu mën a doon rek ci mbindam la ko feeñaloon loolu guddi xasida yi bisu xasida yi dajaloo jàng xasida baax na waaye bi ko mbokk yi saytoo xam ne xasida yi li ci nekk dañ ko war a xam ndax sëñ bi ko bindoon ngir ñu xam ko kon ñu génnee gisinam woo wii mu amoon ci lu mu mën a doon ci taxawaayu àdduna ak ci diine ci lu mu mën a doon ñu génne ko ba nit ñu xam ko dajee am solo loolu tax commission culturelle bi sas ay nit ñu sarsi leen ay boroomi xam-xam ñu dem gëstu ji thème yooyu ngir man koo génne ngir jox ko mbooloo mi fi teew ñu man koo jariñoo ba bu ko defee li fiy génne ba buñ ko génnee des na ci mën a jariñoo ba déwén ba ñu indiwaat yeneen tem ndax xasida yi nga ko waxee rek lépp sëriñ bi ci biiram la ko tënk waaye nag buñ koy durus rek di dem di ko barkeeloo loolu lu baax la waaye dafa mel ne sëriñ bi bu ñu seetloo mbindam dëgg dëgg lool loolu képp tax koon di bind moom ci boppam da koy leeral fu baree bari ci mbindam di wax ne da koy bind ngir jegeel nit ñi xam-xam leen li mu wax ne day fay yeesal taalif yi yu baax yi nga xam ne moo ko ji ñoo ko jiitu woon li ci des muy wax ne daf koy dundalee lislaam am ci parti boo xam ne nag mooy parti bi may wax ne jihaad la ak tagg yinante bi loolu moom daa wax ne damaa aay sax ko toxal kon nga gis ne liñ toxal li ci feeñ moom lu ñu war xam la doonu lu war a nëbbu ndax li nga xam ne daa aaye ku ko toxal dafa xaraam ndax ay secret digganteem ak boroomam la loolu leen li cëpp da koo gas suul leen la mu wàcc ko ci géej gi ngir bëggul gi waaye li ci feeñ lu ne dañ ko war a jariñoo loolu yi nag xam-xam bi ci nekk dañ ko war a génne bañ koo jàppe ndax sénégalais ñoo am nuñ bindoo ba barkeelu daf leen a gën a yomb ci mbir mu mën a doon waaye te loolu aayul sax ndax euh, barkeelu moom ñi am barke mooy ñiy barkeelu euh, euh, al barke lil mu lil mu waaw lil mu tabarkiina kon loolu moo tax loolu ayul am na lu gën am solo loolu mooy mbind boo ko jëlee nga jàngat kii mbind message bi muy jàll ci mbind mi amul genn xasiida goo mën a jël ci xasiida yi te amul lu ci sëriñ bi jubloo jàngale defu ko rek ngir noonu xasiida gu mën a doon moo xam guy tagg yonente bi la guy guy guy jàngale ci tawxiid la gu mën a doon rek boo ko jàngee da nga seetlu ay message yu baree bari yum ciy jàllale yoo xam ne daa bëggoon murid yi xam ko bindutoon daal ngir amul jot kon loolu mel na ne mbokk yi xam nañ ko tax ñu tam lii bind tooñ ngir ne daa am wone xam-xam da doon bind ngir jëriñ nit ñi loolu sax moom tax mooy wax ne daxat nii ilaa xatti nasihatu lil wara li ma xëcc ci bind mooy laabiré nit ñi bëgguñu xam ne taalifam yi it da ci yee kon nawetu taalif yi yu kayisul balit ku gàtt xel ki ak ki am xel ñaar ñëpp dama leen yee ci sama mbind looloo tax ñu bëgg a génne xam-xam boobu yi ci nekk ba tem bu mu ci mën a doon rek manees na koo gëstu ca xam tem bu mu ci mën a doon rek manees na koo fekk ci biir xasida yi Sëñ Tuubaa yi ndax mooy koo xam ne dafa daj jamono koo xam ne lu mu mën a doon lool laal lu mu mën a doon rek bind na ca dajale ja ñun nag dañ koy defi kàggu di ko téye waaye di ko yëraat di ko génnewaat loolu dana ca am solo lool xam naa programme bu bu am solo daal yoo xam ne ji ba ngañ ko génne ci xasida yi Serigne Touba yi moo ngi xaar moo ngi xaar kon mbokk yi ko siifur mën nañoo bàyyi xel lu mel noonu xam ne am na programme yu am solo incha allahu ak thème yu yoo xam ne danañ ko génne ci biir mbindum Serigne bi ba yee nit ñi ne xasida yi manees na cee dem defi gëstu ñiy def seen test ci université yi manees na ko defi ci xasida yi loolu yu mel noonu lañ bëgg a génne ba mu leer bu baax a baax ci ci ci mbooloo mbooloo mi nga xam ne ñoo fi teew ak ñu koy seetaan ñoo ngi jégaluwaat baax sëñ Gawaal. parce que jëf euh, sëriñ Xaadim sëriñ Saliou kon defe naa loolu leer naa ñi euh, kon xam naa Baye Mbacke dafa mel ne foofu sëriñ Xaadim daaneele euh, fi la jëmi liggéey bi nekk muy. naka la ñuy def ba gën a jariñoo xasida yi donte ñu koy jariñoo sax waaye gën koo mën a jariñoo ñu gis liggéey bi eh, xatuloo gi nga xam ne def na ko si gox bi nga xam ne moom moom la ñu nekk ndax ni ko waxee ci délégation yu ñu lim nekkul ay délégation yoo xam ne rek dañoo ñëw rek ngir fekk si bis bi waaye dañoo yor même liggéey boobu ñoom tamit di ci liggéey kenn ku ne am looy jàng sa moroom ndax délégation yu ñu lim nii ku ciy ñëw ku ne kuréel national réew ma nga nekk ngay indaale nga xam ne dafa mel ne Euh, gox bu ne ñoom dañ faa jël kenn indi ko mu nekk kuréel ca ca ñooñu ñun noonu ñu nekkee eh, benn kuréel boo xam dañuy ñëw ci turu France noonu la amee kuréel bu ne ci dëkk ba mu nekk waaye teewul bu ñuy ñëw dëkk bu ne dañu fay jël kenn waaye mu mel ne li li Sëñ Blaat doon wax maanaam euh, matt yan ko ci xat yéen dañuy dañuy yëgoo mu mel ne fenn fu ne ak matt la ñu fay jël waaye biñ ko indee rek mu nekk say woo xam ne nii war nañ ko mën a jëriñoo kon mu mel ne Baye Mbacke tamit dañ lay xaar foofu ci délégation yi nga xam ne war nga leen a dalal ci kanam ngir war a waxtaane liggéey bi ak ubbiku géeg bunt yi mu ubbi waaye naka la ñu may daan dama def nag ba bunt yooyu ndaw ñi nga xam ne ñoo yéeg si nga xam ne ñoo nekk nouvelle génération bi nga xam ne ñi ngi ñëw naka la may def ba buñ leen ko buñ leen koy jébbal mu nekk lu set wicc waaye buñ leen ko jébbalee ba pare nag accompagner leen ba nga xam ne danañ ci maanaam xiirtal seen bopp ba bu ëllëgee buñ leen koy bàyyee xam ne lii lu lu dal xel lay doon jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf Baye Saliou jërëjëf sëñ Khadim ci léegi am solo Euh, loolu moom suñu Moustapha mooy li nga xam ne daanaka mooy li sëñ Saliou wax mooy sëñ Xaadim wax rek foofu rek daanaka sax li ci ëpp ci laaj dafa mel ne foofu sax lay war a jëm ci ubbi gi nga xam ne mel na ne liggéey bu ubbiku na ko ak it euh, ni nga waxe sànq ci délégation yoo xam ne ñu ngi jóge ci ay réew yu yu yu yu xaw a wuutee te xaw a soree lool te benn pas-pas bi rek euh, moo lim fi indi tey sax moom lañ bàyyi tamit fa nga xam ne fa lañ jógee comme ni suñu laa daan waxee rek bu daan daral kilifa yi ci ay jamonoom naan li ngeen fii fekk si rek mooy la ngeen bàyyi fa ngeen jógee daanaka loolu mooy benn pas-pas bi. te it euh, yàlla def na pas-pas boobu yi moo dem ba jur sax mu mel na sax menn mbooloo la menn mbooloo la te mooy li nga xam ne mooy lislaam waaye itam mooy sëriñ bi mooy mooy mooy mooy murit gi ndax lislaam ak ak bennoo la murit gi tamit ak bennoo te murit mooy lislaam waaw comme ni sëñ Saali waxee eh, maam ngir nga nekk am murit faaw nga nekk ab julit kon dañuy wax murit wax lislaam waaye lépp benn la mooy lislaam rek eh, te buñ xoolee sëriñ bi dafa daan soññee lu bëree bëree bëri ci murit ji ñu nekk benn comme ni nga xam noonu alxuraan di soññee saa ni julli ji nekk benn waaye comme sëriñ moom buy wax naam lislaam lay waxal waaye day gën a cité murit yi nga xam ne moom ci ci ci ci ndigalam ci la ñuy wéyee ba daanaka boo xoolee ndigal lu muy joxe saa su nekk rek maanaam turu murit gi lay utiliser nga xam ne ku nekk am murit yow da xam ne kon yow ca nga bokk waaye kenn seetlu la ca bokk na ci bennoo googu noonu bokk na ci ndigal yu bëree bëri yoo xam ne daf koy joxe ba sa ba dafa mel ne kon tawfiq ji ci am nag mooy Euh, ñi ñuy tudde waa alu xasida waa wala waaxlu kuréel dafa mel ñoom message boobu ñoom sëñ bi dafa leen ko yenkiwal bañ dégg ko ba dafa mel ne ànd googu moom boo xoolee day doon looy mën a teg boo xoolee day doon looy a gis comme ni nga limee délégation xam ne wax dëgg yàlla ku xool gis ne ay réew yu sori lool la ñuy jógee euh, muy li nga tudd sànq lu mel ne France lu mel ne Allemagne lu mel na Angleterre ba ci ba ci Sénégal ba ci Canada sax ba suñu boog ni ngi nekk Sicile nga xam ne Sicile sax dafa sori loo xam fan wala benn fan da nga ko da nga ko def doog ak si te te te dafay mel ne kon li sëriñ bi waxoon rek ne yaa rabbi ij ali muridi maa fii si nekk sam daj maa joojee dafa mel ñoom dégg nañ ko euh, lim ñaaw ne suñu borom nag ma maam daje sama murid ba nekk ci génn buum ba mel na ñu bokk ndey ak baay soppante wóolonte euh, loolu wax dëgg yàlla dégg nañ ko kon xëy na kon ngir bañ a bañ a bañ a jël waxtu wi xëy na ak toogaay bi ak li ñuy xaar ci kanam euh, daal loolu yi nga wax rek mooy li ñuy xaar incha allah am nañ yéenay réew yooyu nga tudd yëpp ñi nga xam ne dañ fiy ñëw ak ñi xam ne suñu jóge Sénégal ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir réew mi di teew insha ñu xool lu ñu gën a waxtaane waate ba ànd gi gën a nekk benn ba li sëriñ bëggoon ñun daal mu mën koo am ñu ñun liñ bëgg sëñ ñi mën koo am te loolu dara mun ñu koo may lu rek bennoo gi te jëm yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa rek tax euh, loolu rek moom moo ñu ko mën a may Cheikh Moustapha Kamal jërëjëf euh, Serigne Mbacke ci leerale tarkala macha allah kon mbokki téléspectateurs yi ni ñu leen ko waxee woon rek ci euh, commencement jotaay bi yéen a ngi ànd ak ñun en direct fi nga xam ne moo di. Fiera Malpensa ci Milano Italie ci eh, treizième édition oh, bisu xasida bi ñu fi amal ci ndigelu Serigne Sidel Mokhtar xalif général de kullu mourid ñu leen koy fatali ci ne bis bi ndigelu mi ngi jóge won ci Serigne Touba Cheikh salim Mbacke yàlla suñu borom bo suñu borom yokk ay leeram nek nonu mu jaar ci Cheikh mohamed Lamine bara ba fi ñu tollu nii ki fi nek tay Cheikh Sidel Mokhtar ñu diko ñaanal mu yàgg fi loolu te and ak wër ñu leen xamal man ngeen ko am ci mboolem site internet yi nga xam ñi ngi and ak ñoom ak mboolem télévision yi nga xam ñi ngi and ak ñoom muy aduwe yi nek nonu eh, mourid TV Touba Monde bi TV ma ak euh, Bisri TV ak mboolem site internet yi inshallah lepp lu fi xewé lepp lu ci waay bëgg and euh, ak ñun rek mëna dem ci studio yi dana ko mëna a en direct euh, fi ñu waxee yeen kuréel bu Touba Bergamo ñom ngeen dégg ñuy jàng non ci suuf kon nit ñi def moy daal di fas yéene ñëw ak yeen ci ci kanam tuuti xamna Serigne Mbacke Ndiaye dina dalal ku melni Serigne Makhtar Sey bu Touba Toscana di kenn itam ci kuréel bu Touba Toscana waye di kenn itam ci commission culturelle bi di kenn ci itam ñi nga xam ño ñoy saytu mbolem daal daara yi nga xam ne ñoo féete foofu ci wàllum njàngum alxuraan mi njàngum xam-xam mi mu am moom ay thèmes yu am solo yoo xam ne dalal ci kanam kon mbokk ñu leen di jox ndaje tuuti rek ñu bàyyi leen ngeen continuer suivre li nga xam ne moo di njàngum kuréel mi nga xam ne muy njàngum xasida mi nga xam ne mi nga am ci suuf kon ba ci kanam tuuti insha allahu rabbi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مرسرى إني أخاذب النصارى ترى